أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yu tedd yi góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñépp boole seen ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem sunu waxtaan tey jii mi ngi jëm ci al muhaafadatu ala salawaat sàmmonte ak julli fa tabaarakallahu xam ni julli benn ponk la ci ponk lislaam jullit julli la sant tabaarakallahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na bés mu dikk ci biir saxaaba yi yëkkati loxo mi tedd di ñaan ni allahuma la tajcal fiina shaqiyan wala maxruman thumma qaal atadruuna man shaqiyu lmaxrum qaalu man huwa ya rasul allah qaala taariku salaati dafa am bés mu ñëw saxaaba yi yëkkati loxoom ni yàlla yàlla nga génn ci sunu biir ku texee di ku ñàkk ni ndax xam ngeen kan mooy ku texee di ku ñàkk ñu ko kan la ya rasul allah mu ni taariku salaati ki bàyyi julli yan nañu loolu ump ump jullit képp koo xam ni yaa ngi wuyoo turu jullit te doo dëpp sa jësi suuf nee na bokk nga si ñaan googule ku texee di ku yàlla dàq ci yërmandeem ku yàlla dàq ci yërmandeem nag mooy yàqule nga àdduna yàqule nga àllaaxira julli yàlla moo ko farataal ci jaam yu ko gëm li takuna silatan bi xadaratihi wa taskiran bi azamatihi wa shukran ala ni'matihi mu doon loo xamante ni buumu jokkoo la audience lay doon diggante jaam bi ak xadara yàlla subhaanahu wa taala di fàttaliku màggam gi di ko sant ci ay xéewalam fa tabaraka allah moo tax ñu ni julli daal mooy dartu saadatu diini wa dunya wal axira teraanga diine teraanga adduna teraanga alaxira mi ngi taxaw si julli ku yàlla may nga sàmmoonteeg julli yi ànd ak laab ga ca war ànd ak toroxlu ga ànd ak teewlu ga su la ko yàlla nangulee tabaarakallahu am nga teraanga diine am nga teraanga du àdduna am nga teraanga alaxira borom bi ci alquran yaxal ko ci barab yu bare xaafidu ala salawaati والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين nee na sàmmonte leen ak julli yi julli yi juróom rawaate ne ba ci digg ba ñu wax ni mooy tàkkusaan te ngeen koy taxawal ci seeni waxtu julli gu nekk am na heure bu ko yàlla màndargaal tabaarakallahu heure boobu nag fajar fajar la tudd tisbaar tàkkusaan timis gée heure yooyu yëpp tabaarakallahu sa borom am na lu tax mu def ko heure boobule sàmmonteel ak moom seetal doomu aadama bis bu nekk nga xëy mbaa nga gont am koo war a seeti moo xam kilifa la ci àdduna boo xam ni dan la amal njariñ mbaa kilifa diine amal la njariñ ci ay ñaan ak tegtal ñoo ñëpp nag seen kilifa mooy yàlla subhanahu wa taala sooy dem ci agence boobule daa ko respecté daa sol lu rafet bëgguloo tardé bëgguloo ku la yedd seen kilifa ñoom ñëpp di yàlla tabaraka wa taala bés bu nekk bu jox la audience muy kilifa wu kilifa yépp bés bu nekk mu jox la audience te yàggul de cinq minutes la de wante nga nekk sa soxla bopp mbaa ngay nelaw baa ngay lijjanti mbiru àdduna yoo xamante ni ndem dana sotti kon nit ñi nañu ressaisir waat yeewu waat ni wat bërit xam ni buuru buur yi su soxlaa ñépp ñàkk su julli jotatee ndaw ak mag lu way nekke naka teg dëpp ko jox yàlla li mu moom yaakaar ci moom barke soo dee jàngi da ngay yaakaar barke soo dee liggéey da ngay yaakaar barke soo dee sëy da ngay yaakaar barke te kiy joxe barke mooy yàlla subhanahu wa taala li nga bëgg yëpp nag ki kay joxe su soxlaa nga sàggane ay biram na nit ñi yeewatte ni bëreet jox yàlla li mu moom yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam awalu ma yuxaasabu bihi labdu yowma alqiyamati alsalaat fa in salaxa salaxa saa'iru amalihi wa in fasadat fasada saa'iru amalihi bisu pénc ma la ñuy jëkk réglé ci jaam mooy dossier julli suñu indee dossier julli teg ko nii tegal la sa woor sa aj makka sa ay azakaat sa ay saraxe sa ay naafila xool julli ba noppi su julli baaxee kenn xool yi si des yépp ay baax mais su ñu xoolee julli fekk sa julli baaxul yàlla nanguwu ko sa saraxe sa aj màkk sa kaamilu alquran sa azakaat dara du yàlla du ko nangu xool li ni mu grave kon nit baasu lay tax yàlla nangul la waroo ko sàggane jàngum alquran bi jaabante màkk bi saraxe gu dul jeex macha allah taala loo am joxe ko lépp baax na rafet na ak jokki bokk mais su la wóoree ni yaa ngi joxe yooyu le te taxawloo julli yaa ngi si pertement yaa ngi si pertement loolu jar a bàyyi xel la képp koo xam ni yaa ngi sàmmonteeg julli ànd ak laab ga ca war toroxlu ga ak teewlu taxrisu fi nafsi muraqabatu azza wa jalla dafay am ci yow jeexital lu muy jeexital si yow da ngay sàmmonteeg ni yàlla ngi da tiim da ngay am niveau ragal yàlla yàlla ngi da tiim ku yàlla tiim daa ko tiit daa ko ragal lu mu la woo daa ko def wante it fa sadaqa ida xadas ku yàlla tiim tabaaraka la nga yëg ni mi ngi lay gis donte gisuloo ko yow looy wax dëgg lay doon xool ku nekk ci barab sa kilifa di la gis te gisuloo ko teg la benn caméra janoo ko yow daa sàmmonteeg sa toogin daa sàmmonteeg sa waxin noonu la mel yàlla ngi yonoog ñun looy wax day nekk dëgg tabaarakallahu loo digle di nga ko def su nattu ñëwee di nga muñ su xéewal ñëwee di nga sant borom bi ne ci alquran inna al insana xuliqa haluan ida massahu charru jazuan wa ida massahu alxayru manuan illa almusallin alladina hum ala salatihim daimun sadaqa allahu alazim yàlla nee na subhanahu wa taala doomu aadama def ko bind ci ragal baqar ñépp baqar lu la laal lu la xosi yóbbu la matt sax nga saalit matt na ma am naa picc am naa taab am naa góom sama biir ngi metti sama bëñ su xéewal ñëwee nga fàtte sant nit a mel noonu ci ñu bare nee na illal musallin ba mu des ñi sàmmoonteeg julli te sax ci julli googu ñooñu su xéewal ñëwee ñu delloo ko ci yàlla su nattu ñëwee duñu salit delloo ko ci yàlla kon jullit tabarakallahu dafa am lu muy rogaat ci sa ruux daf koy tàggat rogaat sa xol may la sakiida may la sérénité may la dal man raqabahu jalla sha'nuhu képp ku sàmmonte ni yàlla ngi jonoo yow doo def loolu yàlla di mere insha allahu falam yazin walam yurab walam yaxsud kooku du ànd ak jigéen mbaa góor bu ko daganul du du ànd ak xolu kañaan ak soxor ak noonoo du xañ nit àqam du tooñ soxnaam du tooñ borom këram du tooñ njabootam du tooñ réew mi du tooñ du tooñ ay dëkkaaleem dafay doon ku maandu ci lépp julli moo ñu réglé moo ñu discipliné borom bi ne ci alquran inna salaata tanha an alfahshaai wal munkar wala dikrullahi akbar ne julli dafa xañ nit def lu bon ak def lu ñaaw soo amee jikko ju ñaaw am ay comportement yu baaxul wala nga am njaboot gu léej mel noo xamante ni nawloo ko xiirtal ko ci julli bu mu tay bu mu bàyyi fekk mi ngi koy def yàlla dana ko tàqale ak jikko yu ñaaw yooyu mu ni wala zikrullahi akbar tudd yàlla moo gën màgg lépp am ñu ko déggee ni nekk julli baax na wante tudd yàlla moo gën for julli la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wala zikrullahi fi salaati akbar yàlla dafa ni tudd yàlla ci biir julli ji moo gën màgg lépp ndax julli du rek ay gesticulation kabar rukkoo sigi déedéet ci biir julli ji da ngay teelu yàlla di toroxul si kanamu yàlla di yaakaar yërmande yàlla teewlu googu moo tax ñu naan wala zikrullahi akbar tekkiwul ñaar ñu teqalikoo déedéet julli julli la zikrullahi si biir julli gi mais soo ko bëggee teqalee julli gi ba yow doo julli damaa tudd yàlla rek loolu jaawale la ak njumte wu rëy rëy rëy yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man lam tanha man lam tanha salaatahu an alfahshaai wal munkar lam yazdad min allahi illa bu'dan nee na képp koo xam ni yaa ngi taxaw di julli suba ak ngoon ànd ak njàpp te teewu la def lu bon teewu la wax lu bon teewu la ànd ak nit ñu bon nee na sa julli woogu du la jural lu gën a sore yàlla kon yaa am problème yow yow yaa am problème su boobaa tabaarakallahu loolu jara bàyyi xel la borom bi it def yërmandi si julli def ko juróomi waxtu ci bëccëg bi su la fa yar rombee am na noo koy daboo tisbaa ngi sa kanam taksaan ngi sa kanam nga am audience yoo xamante ni waxtu wu nekk mën nga rattrapé wu sa ay rëcc-rëcc ngir yéen mën a borom bi teewlu ko soo ko fàtte woon mu ni képp koo xam ni yaa ngi sàmmonteeg julli ànd ak tiit yàlla dina la jéggal sa bakkaar dana la sopp moom yàlla te ku yàlla sopp texe nga insha allahu taala ne diggante benn julli ba beneen julliwaat lu fi jaar ci bakkaar yàlla dana la ko baal kooku mooy bu mu yërmande subhanahu wa taala soo jullee fajar diggante fajar ak tisbaar ay rëcc-rëcc jaar fi tisbaar su ñëwee yàlla faral la ko ni ki noonu tàkkusaan bëggee kon bés bu nekk yàlla may na la chance nga mën a sauver nga mën a rëcc bul sàggane boobule chance yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man lam yuxaafiz ala salaati xurima fi dunya nicmat albaraka fi lumri koo xam ni nag sàmmontewuloo ak julli joxloo ko àqam doo julli si waxtu wala su la neexee def su la neexee bàyyi yàlla moo lay xañ barke dund mooy dund gu amul barke mooy gudd fan bu amul barke amuloo diine amuloo leer amuloo benn mbaax waaw te ku dee su loolu daañ la mbugal mbugal lu tar wa jaa yowma alqiyamati bila nuurin wa bi gayri burhanin ala al imaani yan nañu ump ump jullit bisu penc maa nga ñëw ci kanamu yàlla doo indaale benn leer kanam gi dafay xëm ñuul kukk malaaka yi duñu la seedeel ni kii gëm na yàlla loolu mooy ku yàlla dàq ci yërmandeem ku texee di yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam taariku salaati ala sixatihi la yaqbalu llahu tawxidahu wala amaanatahu wala sadaqatahu wala siyaamahu wala shahaadatahu waqad tabara allah minhu nee na képp koo xam ni am nga wér dara jotu la amuloo benn ngàdd tabaarakallahu doo julli nag ci kaw tayeef ak pànk ak sàggan ne yàlla du nangu sa laa ilaha illa allah du ko nangu ak li muy foor yépp sa saraxe yàlla du ko nangu sa koor yàlla du ko nangu sa shahaada yàlla du ko nangu yàlla nee na jàmbur na sa ay mbir demal foo xam génn na sa ay mbir malaaka yi ni jàmbur nañu sa ay mbir demal foo xam yonent yi ni jàmbur nañu sa ay mbir bëgguñu la xam demal foo xam illa an yatuuba ndaree nga tuub dellu gannaaw kon tuuba ngi taxaw lu waay saggan saggan lu at ya bare bare fekk daawuloo julli te génnaguloo àdduna yaa ngi ànd ak sa sago ak sa xel dawal gaaw nga tuub nga ni bëreet nga tàmbale julli ngir yàlla jéggale yërëm la subhanahu wa taala yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam su amoon kenn ci yéen ci buntu këram benn dex bés bu nekk nga sangu si juróomi yoon ndax kooku dana des yaram tilimam tilim si yaramam du amati bés bu nekk juróomi yoon nga dugg ci dex gi raggu ba set fomp du amati tilim ne noonu la julli mel julli yi juróom képp ku sàmmonte ak moom doo deseeti bàkkaar dafay far yépp insha allahu taala yonent bi ne sala alayhi wa sallam ashratun min ummati yasxatu allahu alayhim yowma alqiyama wa yamuruhum allah bihim ila annar wa wujuhum idaamun bila laxma فقيل من هم يا رسول الله فقال شيخ زان وإمام ضال ومدمن خمر وعاق لوالديه والماشي بالنميمة وشاهد الزور ومانع الزكاة وآكل الربا والظالم وتارك الصلاة إلا أنا تارك الصلاة يضاعف له العذاب ينتي بنا صلى الله عليه وسلم فكنت خيتم دي bisu pénc ma sunu excès yàlla jox ndigal malaaka yi nii direct safara ñi jawñ sax réglé directement safara ñun kam ñan la ya rasulallah yal nañu um ump julit mu ni góor mbaa jigéen dem ba mag sàggan di def lu la kenn santul def lu la lewul ak ñiit lu jubadi njiit lu dul wax dëgg di wat ci lu di wat ci lu dul dëgg tabaarakallahu di def lu bon ak ñàkk maandu nankatu sàngara jaaykatu sàngara liggéeykat ci sàngara ak ku mooy ñaari wuy juróom ba dogoog ñoom ak koo xam ni dafa wër di xëy di gont di ràmbaaj yàq ay diggante ak ku tey ndeyjooram waat ci yàlla ci lu dul dëgg di seede loo xamante ne xam nga ni moos loolu wérul dañ la fay pour nga waat ci ku yàlla jox wërsëg nga war a génne azaka nga lànk ni doo génne azaka ak kuy tooñ ak toññar bi doomu aadama yi ak ki bàyyi julli ñii ñépp li ñu raglu raglu nag ki bàyyi julli moom ay mbugalam dañu koy multiplier waat par dix par cent jëm jëm jaw kaw yann loolu ump ump julli ump jullit yann ñu yàlla xiir ci lu mu gërëm te xiir ñu taxawal julli te ku julli yann la ko yàlla nangul allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari rakaa rakka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom-ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom-ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseer garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulamaa saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu